waaw dañuy sant yàlla bi nu yàlla mayee ñu ñëw fii ci tuubaa dëkk bu sell bi màggal gi des na juróom benn fan ma ànd ak délégation bu am solo boo xam ne ñu ëpp ci ñoom ay responsable lañu ci AFP wala ñu nekk ay militant ànd naa ak ay maire ànd naa ak ay responsable des hauts conseillers mais ànd de des yoo xam ne senegal moo leen ñor waaye AFP moo leen ñor waaye ñu bëri ci ñoom nekk ay jullit nekk ay taalibe kon suñu ñëw fii tey euh, ki ñu yebal ak ki ñu fekk si moo ko ki ñu yebal mooy président Moustapha Niasse nga xam ne mooy suñu wasila ci politique ci moom lañ jànge politique ci moom lañ nàmpate mu am mu def ci ñun yebal ñu ci xalif général de Mourides muy sëñ Muntaxa Bachir di xaritam bu yàgg lool waaye yebal ñu tamit ci xaritam sëñ musafa Mbacke Lakram di genn wàllam lim ñu yóbbante nag mooy mi ngi leen fàttali cofeel bi mu am ci ñoom waaye mi ngi leen di ñaan ñu ñaanal Sénégal ba réew mii nga xam ne ci la ñu nekk yàlla def ci jàmm nawet bii ñu dëgmal yàlla def ci barke waaye def jàmm ci Sénégal waaye wax na leen tamit mu ñaanal AFP parce que moom ku ko xam xam ne lu ëpp juróom benn fukki at a ngi ni muy politique ci ni tabax Sénégal état Sénégal ci la bokk waaye lu doy amul doylu lu rek moo am xam na ne mënul jeexal Sénégal te formé na ay ndaw yoo xam ne yaakaar naa lépp yéene bu mu amoon te Sénégal te mënu ko ñoon dañ ko màttali mu bëgg ngeen ñaanal ko yàlla euh, may ko mu am retraite bu dal retraite tu jàmm te yàlla bàyyi ko suñu kanam waaye ñu bëgg tamit ngeen ñaanal njobotam li muy wax pour ñu wax ko kilifa diina yi moom laay wax mooy ñu ñaanal njobotam bii nga xam ne moom la bàyyi parce que dafa décider dem congrès pour jël parti bi jébbal ko ndaw ñi maanaam rajeunir le parti noonu lañ ko wax tànn ay ndaw ñoo xam ne li mu def ci ñoom ci jàngal leen état ci jàngal leen liggéey ci jàngal leen diine ci jàngal leen bëgg sa réew ndaw ñooñu tey ku leen jox Sénégal ñu diriger ko mu bëgg ngeen ñaanal ndaw ñooñu waaye ngeen ñaanal ko ba véritablement euh, réew mi nga xam ne moom lañ def yàlla def ci jàmm kon ñu ngi ñaan yàlla yéene boobu mu am am ko ci Sénégal waaye am ko ci njobatam yàlla na ko yàlla moo waaw accident yi li ma ciy wax lenn la rek euh, bari na te nag am na dëkk yoo xam ne accident yi dana am waaye bariwul ñuy ñaan ñii nga xam ne ñoo jiite réew mi ñu jël ay mesure yoo xam ne niñ ko daan waxe ci opposition ko bu nu ñëwee accident yi dana wàññeeku ñu def ko ñun nag AFP am nañu programme boo xam ne ay la yéwén mënuñu ko wan appliquer parce que dañu nekkoon ci coalition Benno Bokk Yaakaar te njort naa ne AFP dynamique bi ñu nekk dana génne programme am boo xam ne dans tous les domaines et dans la mobilité donte am na lu bëri luñ ci def ci wàllu yoon ci wàllu route bitumée ci wàllu piste de production am na lu des nu ñu mën a def ba dëkk yu mag yi France États-Unis Chine Canada ak même dëkk yoo xam ne sax ñi ngi ci biir Afrique accident yi bariwu fa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 الحبس والسفر